ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen fu ne boole ci du ñu ànd ak ma bu leen di aar Crosscall te kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at. mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87. Digital Store améliorez votre quotidien. bi dugal ko ci zarf lañ koy tuddee mooy ndab waaye ndab la mu ni ko yiw yi. su ñu leen jëlee yépp def leen ci ndab jël nga ndab li fusti bi darfil xasanaat jël nga ndabal yiw yi ba tax sayidatan li muxsinaat moo tax nga doon sangab rafetkat rafetalkat yi sunu boroom moo tax nga doon ñi gën a rafetal ñi gën a mën a rafetal jigéen ñi gën a mën a rafetal yaay seenab sang فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات مريم yaa maryamu la woon munaada sëñ bi jàngaloon nañ ko fële ca saadatu tulaab wa xasfu yaa yajuusu fi nidaai ka xawlika rabbi stajib duaai yaa maryamu mu ni ko maryamu yow maryama foqti muuxi naat raw nga ñi gën a wóolu seen jigéen ñi gën a wóolu seen boroom kawe nga leen te muy dëgg xam ngeen ni ba mu amee doom ab janq bu am doom ñaare da daan dawee këram dem moom mu am doom am yaqiin ju wéet ci ni bu demee ci ay bokkam yóbbu doomam ji doom ji dana ko setal gëm wóoru yàlla gu toll noonu ku ko am jar nga ñu ni la fukki muxinaat du ma dugg ci maqaamaat yi ihsaan itqaan ak yooyu déedéet waaye wax ji araab ji rekk nii ñu mën koo dégg mu woyof fusti muuxin ak muuxinaat fan inda alladi lam yudrak fa sunu boroom ba nga xam ni kenn jotu ko kenn xamu ko kun fa yakunu laki qaad xayra rasulin lantiqaad وبك فاز سو اعتقاد ولم يكن بمشركي baatu kun fayakoon wammatal na la xayra rasul ngeen ji yonent ñun de muhammad rasulullah sallallahu la ñuy wax ngeen ji yonent kon isa lu ko def ngeen ji yonent bi atibaar mooy ya ko yàlla jagale mu am ko te ñi ci des amuñu ko fa la nekk xayra rasul xam-xam day wax ni law lawlal xaysiyaat la ba la batalatil xikma booy àtte nit ñi bu dara xewee ngay àtte ñi ngay àtte da ngay déglu nit ñi déglu déglu dajale ci li nga déglu ci nit ñi ci ngay tabaxe àtte bi ngay àtte moo tax lan isaa gëne yeneen yonent yi mooy xayriya li mu am moom Isa alayhi mooy benn yonent di juddu di gone wax mooy benn yonent bi nga xam ni ba nëga ni faatuwul bar rafaahu ilay suñ boroom nee na yëkkati naa ko ma kaw moom yonent yàlla Isa mooy aaxiru anbiyaa bani Israil yonent yàlla daan yónni ci banu Israil yuusufa moo ci njëkk yonent yàlla Isaa moo ci mujj moom yonent yàlla Isaa mooy yonent bi sës rek ci Muhammadu Rasulullah mi nga xam ne moom la ne mooy xayru rasul moom yonent yàlla Isaa ba yonent bi ba ba yonent bi moo nettali ne ëllëg yowmal xiyaam su nit ñi sonnee jaxasoo ñëpp fu ne waay daw jëm fa dañuy daw ñoom ñëpp dem ci aadama ni ko wax ci sàkkul sa borom mu ramuñu ndax mbir mi metti na mun leen dem leen ci nuux ndax am na lu ma defoon daal di tudd digganteem ak doomam ñu dem ci nuux mu ni leen déedéet dem leen ci ibrahim ndax ma nit am am na lu ma defoon déedéet ba mu lekkee ca garab ga moom aadama nuux moo leen wax ne leen am na lu ma defoon sama digganteeg sama doom dem leen ci Ibrahim ñu daw dem ci Ibrahim Ibrahim ni leen dem leen ci Moussa ndax am na lu ma defoon tudd moom it la mu defoon ñu dem ci Moussa Moussa ni leen rayoon naa nit ñu dem ci Isa Isa ni leen dem leen ci Muhammad rasulullah waaye waxul moom lu mu def xayra rasul am na beneen riwaaya bu wax ni sax da leen ni ndab lu ñu takk ba kaste ko ba mu dëgër ndax kenn mën naa jot la ci biir te dindiwuñu kaste ba ñu ni ko déedéet mu ni leen muhammadu rasulullah muy xaatamul anbiyi muy xaatamun nabiyin dem leen ci moom kon ñàkk a wax la mu def te defu ko sax ndax almasix li muy firi mooy dana firi almasix dana firi ku ñu far ci ay bàkkaar moom amul benn bàkkaar kon xayra rasul ngeen ji dañu am nga euh, xayriya li ñuy wax alxayriya sañ bi dellu siwaat ni ko lam yaxfa inda almuminin kawnuki xibbal muzinin yaa umma xayri muxsinin maasumatan min sharaki nëbbuwul umpalewul benn ku gëm yàlla umpalewoo ni moom sayyidatuna Maryama mii mooy soppeeb ñi nangul seen boroom daal di koy woowaat yaa umma xayri muxsinin yow mi nga xam ni yaay ndey ci gën a rafetal lañ waxoon léegi ci xayrul rasul maxsuumatan min sharik ngay ku ñu musal ci ak fiir fiir yi seytaane yi doon fiir mucc nga ci yow Maryama xam ngeen ni lu wax nañ ko tudd nañ ci léegi yaa uxta Haaruun ak yi ci des wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtaanan aziman weddi gu ñu weddi yàlla ak wax ju rëy ji ñu doon wax Maryama ci la leen yàlla suñ boroom subhaanahu wa taala rëbbee kon yaquuduni li madxiki maa anki fadlan qad xukki vust bi bisrin mudxiki kulla taqyin mudriki li tax ma lay tagg yaquuduni dana ma womat li madxika ci tagg la ndax lan yaquuduni li min xubbika te sopp la rekk tax ma lay tagg yaquuduni li madxiki min xubbiki ridan yu diimu qurbaki ah ngërëm bëgg ngërëm loo xam ni dana tax sunu boroom subhanahu wa taala jël jël laa jegeel boppam min rabbi saatil xubaki ci boroom boroom bi nga xam ni mooy boroom asamaan yaquudu ni li mat xikki maa anti fadlan xat xukki وصي ببسر مضحك كل تقي مدركي mbég mbégte moo xam ni ku ñu ko nettali da ngay ku ragal yàlla xam liñ la nettali xam yàlla danga ci bég mooy li ñu waxoon ci ni ko malaaka yi bëggale woon ci doomam ba mu xam ni lii mbég la mu ko yàlla bëggale waajahtukal yawma bi ma yudiimu lii xuutan bi ma ilaxtiwaaxi sabima min xayri qasdi daraki jàkkaarloo na ma ak yow mu waa jëxa mooy jàkkaarloo jàkkaarloo na ma ak yow di la tagg-tagg bi ngir lan ngir lan mu am ma amee ci ab dundu tagg woo xam ne dina ma may dund dana ma may ndox mu sedd dana ma ndox may ndox mu sedd te tagg wi jubluwuma ci nag wax lu dul noonu dugg jubluwuma ci dab say daraja yi la yàlla bay mu mel ni ñaari wax la maanaam bayit bi dafa am ñaari maanaam bayit bi dafa am ñaari maanaam maanaam mu njëkk mi mooy maa ngi lay tagg maa ngi ci amee dund maa ngi ci amee ndox mu neex waaye loolu taxuloon muy wax li ko tax di wax mooy tagg wi ma lay tagg li ñuy tudde ay madat ay leer yuy jóge ci yàlla maa ngi ko ciy am yoo xam ne dana tax dana tax li may duma ma soxla lekk du ma soxla ndaan dana tax duma soxla lekk duma soxla naan nga xam ne kon tagg yi moo lay tagg ci lay amee leer yuy dina ma teree lekk dana ma dee naan loolu feeñ na ci saxaaba yi ba nga xamee ni dañ doon roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wisaal yent bi da def bu wooree bu ngoonee du dog day continuer ba ëllëg mu wooraat saxaaba yi di ko ci mu ne leen déedéet bu leen ma ci roy ndax man abitu inda rabbi fa yutimuni wa yasqini damay fanaan ci sama boroom mu di ma nandal di ma leel ci ay leeram te yéen du ngeen ko am am mooy li ñuy wax naan diw day tudd yàlla lay dunde du lekk am na ñoo xam ni bu ñu wéeteeg seen boroom ne ci moom du ñu soot duñu duñu soxla ak lekk du ñu soxla ak dund kon wax na ba sax ba ni ko anti sulaalatul kiram ma amma naxwaki xaraam wa anti daatul ixtiraam ah, bilanti xan li suroki waxtu wu yegg si na maa ngi jégalu bu baax a baax a baax yal yàlla defal tawféex ak taysiir jërëjëf